salaamaaleykum mbokk yi nga xam ne yéen a ngi topp 24actu point com am nañu mbégte ànd ak yéen ci seen jotaay bi nga xam ne invité de la rédaction la ñu ko tuddee tey ji nag ñu fas yéene cee dalal honorable Baye Maguette Diakhaté nekk député ci 12e législatif bi ñu fas yéene ànd ak moom waxtaane ay ponk yu bëri yoo xam ne dina soxal réew mi ak parcours am ci wàllu politique Baye Maguette maa ngi leen nuyu ma bàyyi la nga nuyoog ñi lay seetaan ci 24actu point nuyu ak ñi ñuy déglu. Hmm. di am mbégte bu baax itam ci ñëw gi nga ñëw fii fekk ma ci sama kër pour ñu waxtaanee actualité yi nga xamante ni ne moo ne ci réew mi ak it suma jaar-jaar ci wàllu politique. voilà euh, foofee sax kon bu ngeen ñëwee fii lépp lu ngeen xam ni laaj ngeen ma ko ci. te am ki tontu. Mm-hmm. yaa tontu. incha allah jaar-jaar bi itam. Mm-hmm. mooy kañ man damaa bokk ci membre membre fondateur yi. voilà foofu mooy première question bi. Euh, sa parcours waaw ci ah. wàllu politique yi. Hmm. parti bi parti fii ci département Mbacké. Hmm. ak même hmm. au niveau national. ndax jàpp naa ne président Macky Sall. dama dama ay jamono mu woo ci këram. 2008. li ma jàpp naa ni suma diggante PDS léegi mu jeex. ndax Ablaye président Ablaye Wade dina jël assemblée bi ci sama loxo. Hmm? bu jëlee pa euh, assemblée sama loxo na bàyyi parti bi ak lu ma joxoon PDS ak lu ma joxoon. Hmm. man ko ëpp naa def mu ni ma ah kay ma boo ko bàyyi yow ci looy jàpp. mu ma damay samp sama yëfi bopp. Hmm. ni ma na nga xam it bokk nga ci ñi ma ko jëkk a wax. dama bëgg ñu ñu àndandoo ci kenn sa wax naa ko ni ko man de xam nga politique moom mosuma ko def ndax mbàkk gi ma dëkk kenn mosuma gis yow politique am hmm. waaye suma kóllëre ak yow ñoo ngi ko fasante woon ci kanamu Sëriñ Saliou ci kanamu Sëriñ Saliou waaw te du fecc koo ci man hmm. kon jàpp naa lépp loo ne damaa jëlale sax parti politique waaye jàpp naa ne boo demoon bay jaay ceeb ci marché Sandaga sax ceeb muy sóoti sama kër ci yow laa koy jënde kon mën nañu wax que ni li leen boole ëpp na politique li ma ñu boole ëpp na politique ndax hmm. dëgg la bi mu nekkee ci pouvoir yi sax mosuma jóg seeti ko Ndakaaru mu nekk premier ministre bi mu nekk ci ministre yi bis bi ma jëkkee toog ak moom boobu mu ngi assemblée nationale 2007 bi bëgg a jeex booba coow yu bari na laa jógee fii dem seeti waxtaan ak moom ci sama xalaat li ma xalaat ak yëf muy doxee kon li nu boole woon muy dadaa ñëw ci kër Serigne Saliou di ma fekk Serigne Saliou itam am cër bu am solo ko sédd lu ña fa nekkit bu ñëwee teraanga yi ma séq nuñu te mu séq man na may koo xam ne man mënumaa ànd ak nit muy neex mu jafe ma bàyyi ko kon est-ce que mën nañu wax ne Dekkar Ngor Dekkar yéen a ko créé wala dangaa ñëw rek dugg ci Dekkal Ngor man maa ko créé fii ci dëkk bi yaa créé Dekkal Ngor waaw pourtant am na ñenn ay ci ay responsable yi wax ne ñoom ñoo ko créé waa ma la leeralee rek li nga xam ne man euh, maa ko kere ndax li ma la wax nii. Mhm. bi nga xamante ni yàlla def na ñuy laa si parti bi. Mhm. ci hôtel Teranga. 2008 mhm. décembre 2008. man man maa jógee ci dëkk bi dem dem fa kenn kenn ku dëkk ci dëkk bi man mënul ne fekk naa ko. dem assisté ji dem fekke ko. dañuy far ay laajte ak ñooñu. ci ñu dëkk Touba. waaye commune Mbacké bii. 2008 2007 bi président Macky Sall amee jafe-jafe. Hmm. ba 2012 bi mu amee pouvoir. Hmm. ku mu fexe maa ko nuyu léegi moom ku mën a doon te li ma wax kenn di ci teg baat ku mën a doon. moom Macky Sall ko waaw ci dëkk bi. ok mu ñëw fii photo bi hmm. bi nga jàkkaarloon. waaw yaa ngi moom fii dañ ko photo ci sunu kër gi. ci kër gi ngeen ko photo waaw ci kër gi lañ ko photo ba 2010. kon. parti bi. boobu ñu fi président Macky Sall am ci département bi. Hmm. mën na leen lim. da ngay wax Moussa Cissé Lo hmm. wax Maga Diakhaté wax la Seck Sadaga. ok wax ma maam xarit depuis. ñu ngi def jëkk am. kon daal ñu ci des da mbir yaa neex rek ñu wàll si. waaw bari na ci de <laughs> am na ñoo xam bi seen pexe ju woon sa président Macky Sall du falu di xëccoo ay responsabilité booba ñu ci ginnaaw PDS. Hmm? waaw d'accord. am na ki yoo xam ne taxaw nañ seen buntu kër del del ñu président Macky Sall fi ne. Hmm. ñu yónni ko ne ko ne ko néew ne ko néewuma fi. te tey ñu ngi xëccoo ay responsabilité fii rek. te fii lañ nekk nii nii ci département ci département bi yi lañ nekk diggante Touba ak Mbacké Hmm? waaw diggante Touba ak Mbacke. nga xam ne tey bu seen i pexe en principe Touba. bu seen i pexe juboon Macky Sall du falu. du falu waaw alors ñu gis ne euh, wax naa ko léegi responsable politique APR nga ci euh, Touba wala sax ci département bi mais gis nañu ni seen parti bi terewul dafa am jaxasoo gu ci am parce que responsable yu bëri jubóowuñ lan nga jàpp ne moo waral loolu. man damaa jàpp ne dafa amagul responsable. ba léegi nii kon Mbacke <laughs> APR amagul responsable. ndax xam nga. 2009. Mhm. Mhm. président Macky Sall damaa woo. ni ma léegi élection locale yi mi ngi ñëw damaa bëgg boo demee Mbàkke euh, nga fexe ba ak ña fa àndal ñu figiri ci liste yi bu ngeen ma ne ànd ak benn Siggil Sénégal wala société civile ngeen ànd ñoom waaye da ngeen fexe ba am ay conseillers yu figiri ci liste yi boo demee nag benn femme bu ñuy wax Jorgay booba Jorgay moom dem na fa man yóbbuwuma ko fa ñu ko wax Moustapha Fall Mouride Sadikh ku dëkk Touba. Mm. mu ànd na mu dem fa man ma am benn Adja bu dëkk Mbacké ñëwoon na fii te mu sa nekk député. Mm. boo demee ko boole ci liste bi kooku rek la ma jox. benn nit benn nit la la jox. bi ma ñëwee daje ak waa Benno Siggil Sénégal. Mm. ñu juróom benn conseil la ma la jox parce que seen parti bi amul responsable amul lii amul lii. ci 66 conseillers. ma ni ko bàyyi leen ma seet pexe. bi ma ñëwee waxtaanee samay gars ñu defal ab liste. ñu dem ñu dem campagne. benn si gis Sénégal bi ñu doon xeex. bi ñu doon xeeb ñun ñoom ñeenti conseil municipal ñu am ñu am juróom ñeenti conseil municipal. Dekka Ngor. ca jamono jooju ca Dekka Ngor. ak mooy yu amul sax. ak mooy yu amul. waaw voilà ma nekk ci conseil municipal. ba fii ma nekk maa ngi ci deuxième mandat conseil municipal. ok waaw kon jafe-jafe bi fan la nekk fii ci Touba ci diggante responsable politique yi. ma ma jàpp ni. Hmm. bu ñu demee ba nëgë hmm. euh, xam nga nit ñi hmm. politiciens yi ñoo leen di woo waaye ñoom topp ñu politiciens yi. ah bon déet nit ki. Hmm. bi mel noddukat. mën naa noddu ba ñëpp ja da jàkka ji. waaye taxul kenn julli si. day am ñu ñëw am ñu. <laughs> taxul kenn ñuy julli si am ñoo xam ne ñuy mm. bi taxul ñu julli si taxul ñuy julli si waxtu wee jot waxtu waxtu wee ñuy julli si. loolu moo am ci président Macky saal bu ñu mm. wootee. Mm. premier tour fii ci ma commune Mbacké. man maa jiitu coalition Soppi 598 waa. coalition Soppi premier tour. premier tour am 38 virgule 27 pour cent mos naa ko wax président ma ne ko. Sénégal 26 pour cent nga am ci Sénégal gépp ñun commune Mbacké am nañ trente euh, trente huit virgule vingt sept pour cent. ok bu fekkoonte ni ñëpp am nañ ko. voilà kon yaay génn premier yaay génn premier Abdoulaye Wade depuis dixième. d' accord Baye Maguette euh, gis nañu comme loolu nga wax noonu ci commune bu Mbacké mais gis nañu aussi tamit bi ñuy formé waat gouvernement bu bees bi dafa mel ni dañ cee fàtte dañ leen a jàppe lu waral loolu. loolu man maa ngi koy métti lu hmm. maa ngi koy ñaawlu itam nag ndax man jàpp naa ne ñun am na lu ñu fi def yoo hmm. xam ne milité nañu hmm. récompense par rapport ak département yi nga xamante ni mooy département Sénégal yi cër yi ñu leen cërale ak responsabilité yi ñu fa joxe hmm. jox ko ay responsable hmm. ak fii ni mu mel hmm. nga xam ne man damaa jël sax responsabilité waaye li ñu fi doon jàmba 2009 bu na gén dara saafara wu ci kon bu ñu demee élection am fi 67000 waa nga xam ne am région yoo xam ne amuñu ko kon boo ñoo wax ni rek gañ nañ ñu bu fekkee ne nu nga ko waxee noonu lañ ko jàppee wóorta am tax ñu sàppe est ce que est ce que est ce que sanctionné wuñu leen comme niñ ko faral di waxee. <laughs> waaw xam nga man xam nga man comme président gagné na région. xam nga man président Macky Sall man déggu mu wax ne euh, sanctionné leen. mais xëy na bëri ñoom ñoo gisee lool. parce que dañuy gis que ni. Euh, moo tax ma ne gis ne président. ginnaaw euh, bëri na ay régions yu bëri yoo xam ne gañe na fa mais tuubaa dañ ko fee gagné. waaw parce que amati na fii. <laughs> waaw xam nga Touba lañ ko fay gagné waaye am na fi loo xam ne am na ci élection ñu gagné yoo xam amuñu ko fa 67000 mm-hmm. waa du du 67000 waa 700 mm. du du du du du du du bu ndaw mm-hmm. kon bu fekkee ni dooñ dañ ko fay am fii mm. ak taxawaay yi nga xamante ni mm. responsable yi nga xam ne ñoo fi nekk di góorlu taxawu nañ ko nga xam ne kenn ku ne tàmbalee ci mën a kenn ku mën a doon sa pexe bopp ngay def ak sa yëfi bopp waaye du benn post boo xamante ni Euh, nguur da la ko jox boo xamee dañ ciy génn ci sa poos di jox nit ñi wala dañ ciy génn ci sa poos di defal nit ñi euh, propagande wala nga génn ko sa poos bi defal nit ñi defal nit ñi campagne loolu bi campagne ubbee ñu indi xaalis xëy jox responsable ci am nañu ko jox man damaa jàpp ni loolu tam waa Mbàkke euh, département Mbàkke ba fekkee dañoo wax ni euh, li ñu gañ li ñu gañu moo tax amuñu benn poste responsabilité man loolu rafetlu ma ko rafetlu woo ko non non ok est-ce que am nga satisfaction ci euh, formation nouveau gouvernement bi yees bi de am na ci ñu ma xam ndax xam nga ni nekk na ñoom am ñoo xam ne nekk na ñoom pendant cinq ans assemblée nationale. am na ñoo xam ne damaa nekkoon ak ñoom it avant président di di nguur. Hmm. ñu ànd yenn ci àll bekk fanaan di campagne. Hmm. 2007 bu ci ñoo tàggoo. am na ñoo xam ne xam naa leen am na ñoo xam ne ñu doon def li war a liggéey. Mm-hmm. waaye am na ci loo xamante ne. Mm-hmm. desoon na. kon ñu yaakaar ñii fi indi. Mm-hmm. Euh, ak nii ko président doxale ma jàpp ni kon euh, am na ci loo xamante ni. Hmm. gis na ni moom lenteur bi nga xamante moom la ñëpp jàmbat. Hmm. te ñun ñu xam ko ndax ay député la ñu. Hmm. di jël ay dossiers dañ ko ci ci yi. di fa yóbbu délégation population yi. xam nañu yéexaay. boo xamante ni. gouvernement bi nekkoon yeex na ko. Uh-huh. pourtant président nee na jamono ji jamono fast track la ñu toll maanaam dañoo dañoo war a gaawal mbir yi euh, gis nañu ne taxawal nañu gouvernement président nee na li mu bëgg mooy poste premier ministre mu daal di koy dindi ci Sénégal ànd nga ci wala. waaw ma ànd naa ci ngir lenn. Hmm, ngir lenn. bu fekkee ni ni ma ko gisee moo tax mu koy def. Hmm, noo ko gisee. ànd naa ci. Hmm. lenteur bi amoon ci nguur gi. bu fekkee moom la bëgg a saafara. jar bu mu jëlee fi premier ministre bi. di wax ak ministre directement ndax nag bu fekkee damay damay dañuy wax dëgg rek. am na taxawaay boo xamante ni euh, euh, gouvernement bi mooy ñi fi woon war nañ ko taxaw taxaw bi des na. ndax koo ci soxla woon ministère boo dem yu ci ëpp ci ministère yi dix heures. ñu ministre bi ñëwagul. bu énervé boo ñëwee ñu ne ministre bi dina pause balaa ñëw trois heures. balaa ñëw trois heures. waaw. dégg nga boo fa yóbu hmm. dañ ko dox ba sonn te dara du ko liggéey def na ko kontaan ñoom bëgg a fexe ba matériel ñu am mhm. jàpp naa ne yooyu jàppale loolu yooyu social xam ne voilà pañ mi mhm. euh, njàng mi mhm. ak itam mbay mi yooyu soxal na askan yooyu ñett mbir la suñu daal yi ñu bàyyi leen xel ñu bàyyi leen xel ndax mu bari lañ yor man bi ngay ñëw fii maa ngi yóbbaañ ñaari daara laa yor ñu ñëw maa ngi cent et quelques personnes te maa leen toggal yor leen ñu amul doole jooju mi ngay gaare ni ma ngi bóolib ceeb laa teg sama oto. Hmm. di leen yóbbu añ. daal jaa ngi fii ci ba ñaari Baay Faal. c'est bien beneen daal nga fële ci yoonu yoonu euh, fi euh, saate. Hmm. waaye euh, gone yi ñi leen yor itam. Hmm. war nañ gone yi am ci li réew mi am. bu ñu taxawoo rek. xale yi jàng tubaab. bàyyi rek xale yi jàng alxuraan. tey nag réew mi li fi baax lépp jàng kat <laughs> alxuraan. man de ki daara laa jógee. mosuma ci bangum école. te daara laa jógee ñëw fii. ba nekk député bi may ñëw fii bi may ñëw ci dëkk bi dëkk juddoo ma fi. Hmm. bi may ñëw ci dëkk bi mbuusum perméable laa yor. Hmm. def ci def ci soldat plastique. <laughs> comme ni ko ñëpp la 500. lu ma fi am maa liggéey. Hmm. tey nekk naa fi benn mhm. doomi daara yi nag dongay daara yi. war buñ bëggee réew mi awu yoon. te boo mhm. demee Dakar ña fa yor la ëpp solo la fa ëpp solo. Mhm. dongay daara yee ko moom. waaw. ma bàyyi la nga tàggoo mu na. waaw ma ma am mbégte bu baax. Euh, xam naa <laughs> neex rek gars yi dañ may wax ni damay bëgg wax ni gars yi dañ ma dinañ ma jël bu yaatu. ndax li ma bëgg a développé yëpp. xam naa dinañ seqaat euh, yeneen yeneen jotaay yu gën a yaatu. may am mbégte bu baax ci yéen ndax itam lii may ngeen ma opportunité opportunité. ma am lu ma xam ne leeral naa ko. loo xam ne yéen seen bopp sax leerul leerul woon. voilà bien te ñi koy déglu itam bu ñu xoolee ci am ñoo xam ne. la li ma ci wax. xamuñu ko woon. dëgg la parti bi moom maa la ànd cee ñi ma sat ànd. maa ngi nekk ci département bi yëpp waaye en particulier. suñu responsable yi nekk suñ commune Mbacke bi. def nañ li ñu lépp. Euh, euh, lii la yàlla dogal. lu ñuy xaar président Macky Sall li ma daal li ma koy ñaan. mooy ñi fi ne. da leen gën a jàppale gën leen a dooleel. ndax nag adduna moom jeexagut. te situation bi mën nañoo dem ba renversé ko. ndax ay ay situation rek la. ndax ay élection yi ni mu demee ren. Euh, trafic kii bi euh, euh, yi ci am yëpp xam nañ ko. kon suñ njaboot yeeg mm. yi doon dox guddeeg ñu mm. doon boole yëpp ñu ñu li ñu am sax bët nanu mm. waaye nag comme li am na te te te te moom yaatu na moom ah. fi nekkoon kenn ku ne ne seetlu milito mu teg sa loxo ñu encadré euh, nit ñi fi ne jàppale leen ñoom it ñu xam ne li ñu leen jox moomuñu ko askan wee ko moom ñu delloo ko ci askan wi jërëjëf Baye Maguette maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp nag di leen sant dellu soit di leen sant yéen voilà jërëjëf euh, ñi koy sant baax euh, di ko gërëm mu nekkoon invité de la rédaction tey nag ñu ànd ak honorable député Baye Maguette euh, nekk tamit responsable politique euh, APR fii nga xam ne nag moo ci euh, diwaan bi ah. ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm Serigne Saliou moo nekkoon ci caméra bi Cheikhouna Ndiaye Mame Fatou Kébé ñu ngi koy sant baax di ko gërëm di leen jox dig daje incha allah ci beneen jotaayu invité de la rédaction jërë ngeen